asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa bi ngeen tàmbaloo bu ko muy rubrique découverte tey rubrique découverte si euh, ci ñëwaat mais c'est un talent boo xamante ne milieu terrain défensif la waa Manchester City am ci moom yaakaar bu baax a baax ñu bëri di ma ko réclamer pour ma def ci moom découverte man dinaa def benn gëstu tout d'abord xam mooy kan mais avant ça dama leen wax gars yi ngeen continuer di ma dooleel continuer di ma jàppale di like vidéo yi di partage vidéo yi di ñu dooleel si yeneen plateforme yi bu baax a baax loolu ngeen mën a jàppale Senfootball TV pour ñi nga xamul Mahamadou Suso moom le 20 janvier 2005 fële ci Espagne si dëkk bi ñuy wax Granollers nekk benn joueur bu Espagnol de Barcelone doré, dooree si taxawaay mën 1 m 75 le poste milieu terrain jouer milieu terrain euh, défensif mën a jouer aussi comme axe nekk benn joueur bu xamante ne jamono bi moo Manchester City Espagnol de Barcelone a commencé de 2013 jusqu'à 2017 fa à l'âge de 8 ans 12 ans on peut dire que aussi tamit bu 12 ans sax le changé de nationalité ñëw jouer fii di. Euh, euh, Angleterre donc euh, bi mu amee football fa seen U16 après rek ñëwaat na tamit jouer Espagne vous dire que ne c'est un joueur boo xamante ne pare na pour changer am mental bi xamante ne mooy que boo ko convoqué si benn euh, compétition danaan pourquoi pas li ko waral lenn Espagne la juddoo c'est vrai xam Espagne bu baax baax mais ñan ñoo ko gën Angleterre la loolu moo tax aussi tamit à un moment donné Angleterre bi ñu ko soxlee si seen petite catégorie moom aussi tamit gis ci problème mu dem jouer le nekkoon fa di titulaire sans problème bi mu demee gën a xaw a âgé tuuti waa Espagne fa la Petit Diop bi ñu ko convoqué aussi tamit euh, mu dem fa jouer jamono bi nag ça fait un an wa Espagne convoqué wuñu ko mo am possibilité mën jouer Gambie mën jouer Sénégal ay parents Gambie Séné ak Sénégalais aussi tamit euh, dëkk yi mu juddo nak loolu motax ak fu mu yoroo boo xoolee Angleterre dafa yoro mais fa la juddo Espagne la juddo mais bo xolé nationalité Gambien la ak Sénégalais donc mu nekk benn milieu terrain bu xamante ni ñu bëri ñu ma ko réclamer na ma Mouhamed defal ci mom vidéo c'est un joueur assez intéressant bo xamante 18 ans la am et c'est le moment de parler de lui donc euh, si li nga xamante ne que ñu bëri bu ñu duggee que ça c'est un milieu terrain assez défensif assez physique je pense que euh, li ñuy wax intensité Angleterre jàng na ko lu son côté technique lui permet tey ji yenn saa yenn match yu def comme axe mu nekk euh, relance yu rafet donc mu nekk benn jour bu ça ça fait un mois quand même voire deux mois manqué sur avant c'était un peu compliqué vu que y woon yenn vidéo yi mon woon yenn article, est-ce que aussi à mon information comme quoi sénégalais là waaye bi ma ba mu c'est c'est clair et net et précis ak gëstu que de parents sénégalais ñu ci di pourquoi pas donc man lepp lu xam lu bax aussi tamit dama koy yéene euh, sénégalais du coup bo amé 18 ans nek ko xamante am nga mental bu xamante permettre na bo boo boy déjà anglais wo la nga jouer à un moment donné espagnol wo la jouer et que flip foo dem aussi tamit da nga titulaire et on sait que entre football bu Angleterre football bu Espagne c'est c'est deux football différents fallait c'est plus technique basé sur le tiki-taka ni Espagne et que Angleterre c'est plus physique euh, euh, intensité je pense que euh, c'est le moment c'est le moment de parler du boy et comme nous nous connaissons, j'aimerais bien bi année 2024. lépp lu lépp lu xamante ne bëgg naa ko mooy que Sénégal am équipe espoir équipe espoir bu xamante mooy permettre ñoom Amara Diouf euh, ñoom suñu yeneen boy yi ñoom Mamadou Lamine Camara ak yenn boy yu xamante ne euh, comme Bakary bi xam ne toj bu baax baax di côté euh, si si premier ballon yi ragalul jël ay risques dem day dem au duel jël bal bi passé bal bi et ni ma gën a neex ci moom football bu simple la yor

xamante ne prestation la bu fekkee Mahamadou def na ko incha allah su Senfootball TV dinañ ko andi en tout cas c'est un joueur assez intéressant bu xamante ne voilà il risque un an de contrat du côté de Manchester City en espérant pourquoi pas suñu fédération centrale de football bu fekkee dañoo bëgg di doole seen i ay petites catégorie suñu ay U20 ak ñoom seen moom aussi mën nañ ko bàyyi xel ndax c'est un gars bu xamante ne mental moo ko permettre Angleterre bu ko woowee mu dem euh, Espagne bu ko woowee mu dem mais Sénégal mosu ko woo mais du moins où ay am nay parents Sénégal gëm naa ne mooy genre joueurs yi xamante ne boo waxtaan ak ñoom jàllale un projet pour ñëw si ci catégorie du ñu ragal lool ay jàmbaar la ñu gëm seen bop leen té Mouhamadou bi d'après article yi xamante li lii ko nit nit ku am mental la mo gëna gën bo bo boo ci si article li lire ay mbir dañ mental de faire la donc c'est un joueur assez intéressant pour le futur de l'équipe nationale du Sénégal moi qui li mu nekk découverte bi ci commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis dem suñu plateforme yi dool leen ñu bu baax baax di TikTok Instagram boo leen tapee seen football TV incha allah dinañ gis suñu logo bi jaajëfal naa leen wax leen ba beneen sur seen football TV.